bokk na ba léegi luy firndel ni da nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy foo déggee turam nga daal di julli ci moom même boo déggul turam nga daal di julli ci moom ndax yàlla borom bi subhanahu taala moo ne moom borom bi subhanahu wa taala ak i malaakaam dañuy julli ci yonent bi sallallahu wa sallam yàlla mu ne kon yéen ñi gëm yàlla ginnaaw gëm nga borom bi subhanahu taala yàlla ne na nga julli ci yonent bi sallallahu wa sallam yàlla ne in إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما donc loolu firndeel day firndeel ni bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dëggu ci moom mooy yowmal qiyaama yéen ñaar yéenay nekk yéenay ànd donc su dee bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu baax li ma lay wax mooy na ngay julli ci moom lu bari waaye lu koy firndeel dëgg-dëgg tamit mooy yonent bi lu la digal li nga def ko lum la tere nga daal di koy bàyyi bi naa nga topp su naam nga woote ci su naam waaye dund su naam bëgg sunnaam bëgg tamit képp koo xam ne dafa topp su naam bëgg sunnaam nga moytu nag lépp loo xamante ni jàngalewu ko loo xam ne waxu ko loo xam ne defu ko loo xam ne waxuñu ko ci kanam wala ñu def ko ci kanamam mu nangu ko nga daal di moytu loolu loolu la ñuy tuddee mooy bidaa donte ni sax àdduna bi yëpp ko def donte ni sax ñu ëpp xam-xam ñoo ko def bu dee daal gis nga mbir ci diine looy njëkk laaj bu laaj diw def na ko wala diw wax na ko sama sëriñ wala déedéet laajal est ce que yonent bi jàngale na lii sallallahu alayhi wasallam bu dee jàngalewu ko rek defu ko rek waxu ko rek te approuvé wu ko nangu ko ci kanamu kenn bul ko def moytu ko bokk na ci mooy ay façon julli yoo xamante ne da ngay jékki-jékki ñuy envoyé la ko sa portable ne la nañ ko kii bul envoyé ndax kat su dee envoyé nga ko te yoneen defu ko diglewu ko du su naam xamal ni yoog moom du ngeen nekk yowmal qiyaama yàlla nañ ci yàlla musal donc muy julli muy façon julli bu mu mënta doon muy façon woor bu mënta doon wala boog ay ay askar ñu naan la na nga yoon na nga wax fois nga na nga wax euh, alhamdulillah 708 fois laa ilaha illallah 3700 nga ay message yu mel noonu ñu ne na nga ko envoyé na nga ko partagé tiyaabo yu bari nga ciy am yonent bi mosu ko def bul ko def jàngalewu ko bul ko def bul xool quantité bi rek waaye qualité bi la yàlla soxla borom bi subhaanahu wa taala donc loolu day firndeel ni bëgg nga yonent san saa sallam mooy loo jot avant ngay envoyé da ngay laaj d'abord est-ce que am na ci alxuraan bind nañ ko ci wala est-ce que xadis sunna wax na ci bu dee amu ci bul ko ni donc lii bokk na ci luy firndeel ni bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa te ku bëgg yonent sallallahu sa wa mu dëggu ci moom ci sa bàmmeel dañ lay laaj kan mooy sa borom kan mooy sa yenent waaye nañ la laaj sa diine kon na nga yem ci yooyu incha allah taala